ko rek moy tayji dañu ñëw def tournée ci tourner bi euh, ma gis ci lo xamné euh, muy sol masque te yaakaar naa ne euh, fi fièvre bi tollu ak tay ni fièvre bi commencé ak ñett ñoo xam ne ñàkk nañ seen bakkan yaakaar naa ne masque bi kenn waxut a xaar ñu ne nañ ko takk correctement donc dugg naa ci biir ville bi génn naa ci ville bi aussi gis naa ne ni ñu war a solee masque du ñu ko sol donc mooy invité donc di woo ñi nga xam ne ñooy samay mbokk waa Kaolack ñu takk masque yi ndax boo takkee sa masque dangay ngay aar sa bopp aar tamit sa njaboot aar njabooti jàmbur aar keneen ak keneen yaakaar naa ne état li mu mën mooy euh, indi ay masque indi ay produits yoo xam ne tey jii mooy ay jumtukaay yu mel ne ay gel autorité politique yi def nañu ko leader d'opinion yi def nañu ko bàjjini gox yi ñu ngi sensibilisation yi association yi également li dess nak moy ñun kaw la quoi ñu jël suñu responsabilité xamné li lii feebar bi dafay loraate et que nak war nañu mëna tamit euh euh, euh tak teg teg li nga xamné moy jumtu jumtukaay yi nga xamné ñoko ñoo suñu bop moy tak suñu masque raxas suñu loxo ba nga xamné fièvre bi ni nii yaakaar dina génn fi ci Kaolack ndax bu ngeen fàttalikoo Kaolack bokk na ci région yi nga xamné ñu mujjé am virus bi waaye tey boo seetloo kat mu ngi bëgg a jiggi dayoo cas communautaire yi lëmb na Kaolack fu mu nekk nii ndax munoo xëy suba te woo ministre de la santé te déggoo ñu ne Kaolack am na benn ka communautaire loolu ñoo ko mën a xeexal suñu bopp ñu ko xeexale suñu bopp mooy ñu toog suñu kër yi toog suñu kër yi bu dee ne li ñuy doxi ci biti du farata du lu am solo loolu ak tamit jël masque yi di ko takk takk masque du jël masque rek wàcc ko sa manton mais correctement mais également aussi il y ne ñuy rassemblement yi ndax nous gis n'ont ay rassemblement sens donc nous sommes président Macky Sall nous au Sénégalais au en particulier kenn ku ci responsabilité nous sommes tous concernés kenn Sénégal